mbokki internet seen kàddu ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun fii xibaaru digg bëccëg yi tey dañu koy door ak tolluwaay mbas mi euh, tey ji ginnaaw examen virologique yu ñu def tolluwaay mbas mi nii la euh, demee ñu ànd ci ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye mu indi si ay leeral. salaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyi ko ministère la santé et de l'action sociale tey bésu talaata ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre mi ñu nekk. ministère la santé de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a ci juróom-ñetti téeméer ak juróom fukki test yi ñu def kenn moo ci positif positif boobu ka communautaire la mooy dafa am mba feebar bi fekk xamul ku ko wàll wala xamul fu ko jëlee wala ki ko ki ko ko wàll te kooku tamit ci région de Ndakaaru lañ ko nemmeeku toujours ci bilan bi ñu fàttali leen que kenn la ñu déclaré négatif mooy maanaam kooku la ñu saytu xam na ne que mun na génn bés ni tey bu ci yàlla àndee ñette malade ñoo nekk réanimation amul kenn ku génn àdduna bésu démb altine ñaar fukki fan ak juróom ci weeru octobre mi ñu nekk démb ci cérémonie gàmmu Ndiassane bi ñu doon amal xalifa général bu Ndiassane euh, Cheikh Al Becaye daal dina yëkkati ay kàddu ci teewaayu ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ci ay kàddoom la mu xamle bokk na ci ñaawlu avortement médicalisé yi nga xam ne euh, jamono ji yëpp dafa juróon coow fii ci mim réew euh, kilifa gi di ñaawlu lu ñu mel muy wax ni bis buñ ko légaliser fii ci réew mi du doon loo xam ne mbir mu rafet la mu koy ñaawlu bu baax a baax kàddu yooyu la yëkkati ci euh, cérémonie bi doon amal démb fële ca Ndiassane euh, ñu wax ci wàllum politique élection locale yi ñu jëm janvier 2022 Barthélemy Diaz daal dina dëggal boppam euh, ci candidature am ñeel maire bu Ndakaaru ci locale yi moom sax ginnaaw ndaje bi mu doon amal démb ci teewaayu taskatu xibaar yi kii di Barthélemy Diaz lamu mu xamle ni daal dina porter ab candidature am ci maire bu Ndakaaru te dara du ko tax dellu ginnaaw ginnaaw ba waa taxawu Ndakaaru xamle ni ñoom ñoom ñëpp daal taxaw na ngir jàppale seen camarade bi di Barthélémy Diaz ba tey ci politique la ñuy desandi ba léegi ci coow li doxoon ci diggante wàllu Sénégal ginnaaw bi waa PDS xamle ni dinañu amal seen kandidaa bu ndakaaru euh, mu mel ni sax waa bokk gis-gis te ki nga xam ne mooy Pape Diop nekk seen njiit ñoom itam dañoo gis seen bopp ci lu nu mel ñoom taat ñi ngi xamle ni euh, dinañu dem daal di déposer tey jii seen caution ñeel ci élection locale yi ñu jëm dinañ yooyu la xibaar dinañu si ñëwaat si suñu yeneen jotaayu xibaar si politique la ñuy desandi ba léegi Leye Ndiaye di xamle ni bokkul ci benn coalition dina créer ab coalition boppam la mu ca jublu du lenn ngir euh, bëgg jël mairie bu jàmm Diamaguène Sicap Mbao euh, ndax moom nee na dafa nemmeeku ay yàqu-yàqu yu bari ca diwaan boobu ñu teewlu ay kàddoom ci micro margué li ñu waxoon sànq rek mooy Diamaguène euh, Sicap Mbao commune la boo xamante ni bii dafa bëri ay suñu politique duñ ko def ci politique gu diŋat déedéet. ñoo benn bokk yaakaar ànduñoo ko wàllu ànduñoo ko ay wattu suñu coalition bopp lañ def suñu coalition bopp lañ def coalition bi man ak samay xarit ñoo ko def donc ñu euh, l' alliance avec l' alliance pour les valeurs d' éthique et de citoyenneté ak liggéeykat yi. alliance bi tey présenté sama candidature pour les élections yi di nga xamante ni bii ñu ngi ñëw di nekk le 23 janvier 2022. ñoo leen dàq jàng. ñoo leen njëkk ci commune bi moo je suis là depuis ah ñoo leen fi njëkk li ñu liggéey liggéeyuñ ko li ñu xam xamuñu ko donc li ñu nar a def du bokk ñoom li li ñuy def. juróom-ñaari milliards euh, la concessionnaire yi di liggéey ci wàllu mbalit mi di sàkku ngir état daal di leen koy fay lu nu mel tax na ba démb la ñu door daal di aj seen bépp activité euh, bu ñeel mbalit mi kenn ci ñoom di wuyoo ci turu Youssou yàdd indi na ay leeral ci micro margué ñu teewlu ay kàddoom. mais à défaut d'avoir un interlocuteur nan lan mën a def mooy wan population bi que ñun one est ensemble et que mënuñu dem parce que amatuñu carburant loolu rek mooy ba wax ji amatul benn problème ñu wax ci wàllum jàng mi ak jàngale mi université privé yi nekkoon fii ci biir réew mi dinañu dooraat seen njàng ginnaaw bi ab waxtaan doxee ci diggante ans ci diggante euh, ministre de l'enseignement supérieur daal dinañu xamle ni dinañ dooraat seen njàngale mi li tax ñu ajoon boobu la jàngal dafa am université yoo xam ne dañoo nekkoon fii ci biir réew mi te dañ leen a yoreel xaalis bu takku takku muy université privé yi nekk fii ci biir réew mi ba tax ñu daal di arrêté woon seen njàng waaye ne ginnaaw bi ñu amalee waxtaan uh, bu dox ca kilifa yi ak ki nga xam ne mooy ministre de l'enseignement supérieur uh, ab juboo am na seen diggante ndax dinañu dooraat yooyu la jàng fii ak suba. bu loolu jàllee ñu dooree tàggat yaram yi ak football éliminatoire CAN féminine tey ji bu 18h jotee fële ca stade Lat Dior bu Thiès équipe nationale bu Sénégal jigéen ñi dinañ tase ak équipe bu liberia mu nekk seen deuxième tour ñeel éliminatoire euh, Coupe d'Afrique des Nations ñu jeexalee xibaaru tàggat yaram yi ak handball fédération sénégalaise daal dina fësal liste équipe bi nga xam ne ñoo war a dem ca France ci jongante yi ci Coupe d'Afrique ngir waajal préparation ñel match yi war a am ci jamono yi ñu jëm mbokk yi li moo nekkoon xibaaru digg bëccëg gi di leen jaajëfal di leen ñaanal kenn dalu jàmm